asalaamaaleykum mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di wax képp kuy gan ci chaîne bi ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bës cloche bi ndax euh, vidéo bu ñu dugal rek nga bokk te ñu koy njëkk a gis way leen di like way leen di commenter également te di partager vidéo lu ci am solo la euh, gars yi ñu ñëw euh, dem fële ca na ba léegi ak problème yi nga xamante ne maa ngi fay am surtout taxaw ci Sadio Mané bi nga xamante ne jamono yi mën nañu wax il n'était pas ca Bayern Euh, également leral quelques informations euh, ki nga xamé yo yoo xamante na ci euh, Sadio Mané mais la talo dama leen wax ngeen di abonné et activer cloche bi gars yi abonné leen té ngeen activer cloche bi bu leen xaar n'hésitez pas dégg parce que fii information yu wér rek lañ fiy joxe donc ñuy ñëw euh, ci Sadio Mané comme ni ma leen ko waxee euh, foofee ca Bayern euh, depuis quelques jours mën nañu wax crise am na fa défaite yi nga xamante ne ñu ngi koy tegle élimination bi Ligue des Champions élimination Coupe d'Allemagne et tout donc crise am fa et que ci noonu timit euh, Sadio Mané euh, nga gis ne euh, xeex na ak Leroy Sané ba ñu ne daf kaa dóor donc mu nekk ay problèmes yoo xamante ne suñu international sénégalais bi def na ko mu nekk ay frustration yoo xamante ne gaynde bi timit am na ko depuis bi nga xamante ne dafa jógee ci blessure loolu lépp mën nañoo wax nag li ko waral mooy peut-être ñàkk li nga xamante ne mooy prestation yi nga xamante ne yim daan def te defu ko loolu ko waraloon mais sans bi gis nañ ko ne mi ngi commencé ñëwaat euh, depuis match yi nga xamante ne ñu ngi koy titulariser match bi passé gis nañ ko mu dugal Ligue des champions bi gis nañ ko mu provoquer penalty mais ba léegi nii euh, teewul bi nga xamante ne euh, altercation bi am na ci diggante moom ak le roi Sané jamono yi ñi wax ka ne yenn ci joueurs yi Bayern dañ ko wan gannaaw waxatuñoo Sadio Mané xibaar yooyu nag Sky Sport moom moo ko jënnee donc mu nekk euh, information yoo xamante ne est-ce que wér na ou pas mais en tout cas lu ñu ci mënti xam rek euh, média bu fiable la Sky Sport média bu fiable la lu ñu ci mënti wax rek euh, mais en tout cas suñu international sénégalais bi di Sadio Mané daal mën nañoo wax que ne foofee ca Bayern daal situation am tamit difficile na fa. également y a informations yu wax que ne euh, Sadio maane euh, mook ñabri Bayern daf leen a dugal ci liste de transfert bi mais loolu noonu euh, amul d'après Fabrizio Romano parce que Fabrizio Romano nee na ba léegi na jëlagul ndogal ci ñaari joueurs yooyu muy ñabri ak Sadio Mané jëlagu ci benn ndogal def koy def leen di jaay wala déet mais luñ ci mënte xam rek ki ko wax journaliste bu fiable la ku xam Fabrizio Romano xam ka ci information mercato vraiment lu mu wax da koy. Euh, du gëm parce que c'est un journaliste très fiable en tout cas euh, en tout cas luñ ci manti wax rek Sadio Mané euh, décision bi mi jël mom moo koy jël est-ce que mom day quitter Bayern ou pas bu saison bi jeexee loolu xamuñu ci dara.